mazaati shayatin wa audu bika rabbi an yaxduruun bismillahi irrahmani irrahim qul illahuma malika almulki tuuti lmulka man tashaau wa tanzicu lmulka mimman tashaa wa tuizu man tashaau wa tudillu man tashaau biyadika alxayru innaka ala kulli cheyin qadir bokki jullit bokki jaamu yàlla yi sun jotaayu démb mu doon jotaayu numéro 3 ci tafsiru quraanu karim bi ñu ànd ak yéen fa yéene soobu ci ñeenteel bi jotaay mu mel ni jotaay bu njëkk ba introduire nañ ci lu bari ci tafsir jotaayub ñaareel bi ñu leeral ci lenn ci aouzu billahi mina shaytaani rajim jotaayub ñetteel bi ñu tënk ci basmala gi nga xam ne moom moo topp ci aouzu billahi mina shaytaani rajim mu mel ni kon ki doon jàng dégg na lan mooy aoudu billahi min asheytaani rajim ak lan mooy bismillahi rahmaani rahim ñu fas yéene ànd ak yéen dugg nag ci biir saar wi di sootul fatiha di saar wu màgg wi nga xam ne ni ñu leen ko waxee woon ca ñaareel bi jotaay ba mooy ba mu wàccee jibril wax na yonent bi sallallahu alayhi wa ne ko li ma bëgg rek nga xam moom mooy tey jii wàccee naa loo xam ne na nga xam ne mësta wàcci ci démb te du mës a wàcce ëllëg lu màgg ni moom waaye sax na nga xam ne moom mooy dëggi-dëggi mbóot mi la yàlla jox nga suutee ko mboolem ñi la jiitu woon ci ñi yàlla yónni woon yeneen bi waxoon ko kenn ci di ko wax ne ko saar wi moom mooy asabul mathani bi nga xam ne yàlla nee na ma jox naa la ko te nga jaar ci sutee ci mbooleem ña la jiitu woon ci ay yenent kon fatihatul kitaab boobu li ñuy leeral balaa ñoo départ rek moom mooy bismillahi rahmaani rahim ku ne gis na njëlbeenu saar wu nekk mu fay nekk waaye dañuy insisté waat rek ca la waxoon ne moom bokkul ca biir saar wa waaye day séparé diggante saar ya waaye des ci barkeeloo itam gannaaw bu ñu musloo yàlla wane ni ñun kat sunu départ dañu koy déparé ci tur yàlla mu mel ni li ñuy leerale ana dëgg-dëgg lan mooy dafay séparé saar yi mooy saar kat léeg mu daanoo noo xam ne bu fekkee da ngaa ñëw rek jël daanu saar wee daal di ko teg ci njëlbeenu saar wële te amul benn séparation da ngay gis ne kon wax ji dafay yenu beneen maanaam bu bokkut ak bi borom bi nam mu ca wax ja kon kat bala nga départ beneen saar danga naan bismillahi rahmaani rahim mu wane lee wax la joo xam ne c'est déjà fini wax nga ca ba pare tegee ko boor daal di départ beneen wax daal di ne bismillahi rahmaani rahim tudd yàlla tudd ak màggaayam départ beneen liggéey nag boo xam ne yaa ngi ko déparé ci tur yàlla masala mi ñuy njëkk nag ci fatiha moom mooy ku ne gis na ñu koy déparé ci julli waaye ci biir julli googa ku ne gis na ni fii ci réew mi ak ci bitim réew ku ne day gis léeg-léeg ñenn ñi di julli déparé ci bismillahi rahmaani rahim ñenn ñi di julli di déparé ci alhamdulillahi rabbil alamin ñenn ñiy wax bismillahi googu da ko wax ci kaw ñenn ñi di wax ci suuf di ko yeelu ñii di biral ñii di yeelu loolu lépp nag masala la moo xam ne xëy na daañu ci ñëw ci yeneen jotaay waaye li ëpp solo loo xam ne mën nañu koo tënk rek tey moom mooy wuute googu la ko andi waxu yonent bi sallallahu alayhi wa la ndax dafa digle ne jullikat mënta départ wala kon menn mbir mu baax mënta départ ci lu dul bismillahi nañu ko waxee woon keroog dellu waxaat ne saxaabay nettalee ci moom mu ñu wax ne moom kat bu daan julli ak julleem daan na ko ubbee ci alhamdulillahi rabbil alamin mu mel ni kon ñaari version am na yëpp jugee ci sang bi sallallahu alayhi waaye nag ñaar yooyu yëpp moom amee saxaaba wuute woon nañ ci seen biir kenn ku ne jël ba ko jubu ba ci sun mag ñi mu am ay jaaruwaay yu wuute yoo xam ne kenn ku ne ci réew mi ka nga tànn jiital ko fa mu cay jaar foofa rek nga cay jaar mu mel ni kon loola nag wuti la boo xam ne lañ ca bëgg a wax rek def ko comme conclusion boo xam ne bu tënku lay doon moom mooy ku ne xam na ni boroom xam-xam yëpp dëppoo nañ ci wérug julli ki nga xam ne départ na bismillahi ak wérug julli ki départ alhamdulillahi kon mu mel ni loola daanaka sax mën nañoo ni la mu gën a aju du mbir googa waaye daal fu waay mën a jaar ci ñaar yi wér na loola di lu gàtt loo xam ne bëggoon nañ ko préciser bala ñoo jàll ci départ saar wi saar wi nag saa borom déparé ko alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin amin saa borom alhamdu ak cant lillaahi ñal na yàlla rabbil aalamiina yàlla mi nga xam ne moom mooy borom mbindeef yi arrahmaani yàlla mi borom yërmande gu yaatu gi tey jagleel yërmandeem ku ko soob ci àdduna arrahimi yàlla mii borom yërmande gu yaatu gi tey jagleel yërmandeem ñi ko gëm ci ëllëg maliki yawmi diini yàlla mii buuru ëllëg yàlla mi nga xam ne moom mooy buuru bi su fayante ba kon mu mel ni loola nag la ñu bëgg gannaaw bi ñu ci jaaree noonu ci kaw ak tënk ñu dugg nag ca yaatalu baat yooyu ñu jaar ci gannaaw mu mel ni alhamdu baat la boo xam ne baatuk cant la waaye wuute na ak yeneen baatu cant yi ndax alxamdu cant la goo xam ne duñu ko sante kenn ngir ne dafa am lu mu defal kenn da gis ne kon bu ñuy sant yàlla te jëfandikoo baatu alhamdu dugul ne yàlla daf ñoo defal lu ñu neex rek la koy firndeel nag mooy sang bi sallallahu alayhi joxe na ñaari cantine yu bokkut ci jaam bi bu fekkee ne li muy dund mbégte rek la mu wax ne kooka saa bu daanelee loo xam ne saa bu paree ci loo xam ne bëgg rek la ca am mu wax alhamdulillahi allazi bi ni'mati tatimu saalihaat waaye bu fekkee ne nag mbir mooma na mu demee jubuwu ko xëy na du bànneex ci moom moom kat jaam bi li mu war a wax mooy alhamdulilah ala kulli xaal mbir yi daal lu mën a xew rek noo ngi sant yàlla kon li ñu bëgg a wax foofu rek mooy yàlla bu ñu ko santee ci baatu alhamdu duwul dañu ko ciy sant ngir na dañoo defal nangam ak dañoo defal sàngam waaye dañu ko ci sant ci alhamdu googu ndax ne yàlla mooy ki yelloo sant dañu ko ci sant ngir ak màggaayam di ko ci kañ ngir ak réyaayam di ko ci kañ ngir ay melokaanam yu màgg ngir ay turam yu rafet moom suñu borom subhanahu wa taala kon dañu ko ciy sant ngir jëmmi doon gi mu doon suñu borom di ko ci sant ngir jëmmi doon gi gi ñu doon ay jaamam di ko ci sant ci lu ne waaye saa buñ ko dee sant nag ci loo xam ne daf ñu koo defal loolu nag geneen cantiin lay doon xeetu cantiin googa nag mooy li Cheikh Abdoulaye Al Ahadi Mbacke wax ne man kat du ma sant ku ma defalul dara waaye itam wax ne as gorkat bu fekkee ne am na ku ko defal defal ko loolu ñëpp mën nañu koo gis yey na mu sant ko ca ba ñëpp mën a dégg cant ga lu ñu bëgg wax mooy cant jaam ci loo xam ne dañu ko ko defal cant googu du bokk ak baatu alhamdu gi nga xam ne moom la borom bi andi ci alhamdulillahi rabbil alamin bu ko defee nag alhamdu yàlla nag moo ku ne xam na ni moo njëkk a tagg boppam moo njëkk a bàkk boppam ci alhamdu waaye bàkk gi mu bàkk boppam da cee digal jaam ñi ci biir bàkk ga ngir ñoom itam ñu ko cay bàkk moom yàlla allahu firi woon nañ ko wax ne moom mooy ndeyu tur yëpp moom mooy dëgg dëggi tur wi mooy sax turu jëmm ji la ca des lépp nag ay melokaan la waaye yàlla ku ne mën na koo tagg ku ne mën naa sant yàlla ku ne mën naa bàkk yàlla waaye kenn du bàkk yàlla ba bàkk ko ni yàlla bàkkee boppam nañu xool ni yàlla bàkkee boppam yàlla bam ne alhamdu nañu alhamdu cant alhamdu ak kañ lillahi ñal na yàlla yàlla moomu nag la yàlla di melal moom lay leeral ay melokaanam ku allahu moom mooy kan mu ne allahu rabbil alamina kooku moom mooy boroom mbindeef yi rabbu ku ne xam na ni baatu rabbu mooy firi baatu boroom waaye rabbu danañ ko wax di jublu sang li mat a leeral nag mooy rabbu saa bu fekkee ne dafa ñëw la muy moom la muy moom moom rabbu googu di loo xam ne yàlla rek ko moom tur booba turu yàlla la waaye bu fekkee rabbu itam dafa ñëw ñu teg alif ak laam ca njëlbéenu rabbu ga loola yàlla rek la lu mel na ñu ni ar rabbu huwa rabbu loola moom yàlla rek la waaye tey képp koo xam ne moom na mbir mën caa def nu ko neex moom mbir ma yilif ko kooku mënees na koo tuddee rabbu lu mel ni tey nit ki moom kër gi mën nañoo ni rabbu daari borom kër gi ki moom otoom ñu ne rabbu sayaarati borom oto bi ki moom lépp ñu ne rabbu nangam ki moom sàngam waaye daal lii yàlla moomale boppam mooy alaalamin loole yàlla rek moo ko mën a moom alaalamin nag ku xool alamin moom pluriel la waaye benn baat bi moom mooy aalam aalam googu nag borom xam-xam yi firi ko ay pirin yu bokkut waaye ba ca gën a rëy ba ca gën a màgg te gën caa te borom bi andil ko boppam boobakat moom mooy aalam bu ko yàlla waxee mooy lépp lu dul yàlla lépp lu dul yàlla mbindeef yépp dugg muy nit ñi muy jinne muy asamaan muy suuf muy sax jaww ji lépp loo xam ne du yàlla rek loola dafay dugg ci baatu al alamin lépp loolu yàllaa ko moom ana lan mooy firndeli mooy da ngay déglu waxtaan ba diggante Moussa ak Firawna Moussa ba mu ñëwee ci firawna di waxtaan ak moom ba yàgg dañu ko man kat yow firawna dama bëgg nga xam ne li ma lay wooyee mooy dama lay woo ngir ñu dem jaamu ji rabbul alamin firawna ne ko yow Moussa yaa ngi may woo ci jaamu rabbul alamin te firawna kat xamut kan mooy rabbul alamin léegi Moussa leeralal firawna kan mooy rabbul alamin ne Moussa ne ko wama rabbul alamin lan mooy rabbul alamin kan mooy rabbul alamin kan moomam mbindeef yi mu ne ko kat firawna bu fekkee xamoo kan mooy borom mbindeef yi na nga xam ne kii moom aalam yëpp daal moom laa lay woo ngir nañ ko jaamu mu ne ko qaala rabbu samawaati wal ardi wa ma baynahuma ki nga xam ne moom mooy rabbul alamin mooy kii moom asamaan si ak suuf ya ak mboolem la ci seen diggante ak mboolem la ca biir kon loola firnde la luy wane ni bu ñu waxee alamin daal lépp lu dul yàlla rek dafay dugg ci biir alamin ndax asamaan ak suuf ak la ca digg ba la ca la ca seen diggante jaww fa la nekk géej fa la nekk nit fa la ne jinne ne fa dogment yi ne fa jur ne fa lépp loo xam ne daal yàllaa ko bind lépp loo xam ne du wul yàlla rek ma nga ci biir alamin kon yàlla bu nee rabbul alamin yàlla mooma nag moom moom loolu lépp kon loolu moo tax baatu allahu ñu ne kon moom mooy dëgg-dëgg ismullahi al ndax rabbu la ñenn ñi di wax ne moo ko doon waaye rabbu ndem gi yoon dafa ñëw di dëgëral allahu ndem gi yoon dafa ñëw di misaal allahu mooy lan kon ku ne mën na cee déggee ni daal allahu mooy ismullahil azam mooy turu màgg wi loolu sax moo tax rabbu moom ku ne mën na koo moomale lu waay mën a moom waaye daal allahu moom kenn koo xam ne tudd na ko ku dul ja amut moo tax yàlla wax ne tur woow daal mooy tur woo xam ne kenn rek a ko moom moom mooy allahu rabbul alamin mu wax ca saaru mariam ne hal taalamu lahu samiyan tur woowu daal kenn rek moo ko moom muy allahu yeneen yi des yëpp dikk nag di melokaan di ko dëgëral yàlla nag bi muy bàkk boppam nee na rabbil alamin waaye muy wéy moom yàlla di bàkk boppam mu ne arrahmaani arrahmaani ak arrahimi mu mel ni firi nañ ko ci sunu jotaay bii ñu génn kon dafa mel ni ñëwaat ci maanaam yokku leeral la te yokku leeral gu bëri la wolof ya di wax rek ca golo ñu ni taaral gu bëri moo yàqoon kanamu golo kon mu mel ni golo daal ñay wax ne dafa ñaaw nee nañ la yokk ñaawaay ba mooy dafa def ba mu rafet muy wëy di nemm nemmal kanam ga di gën a rafetal kanam ga di gën a def ay yoo xam ne jàpp nañ day day yokk ak taaram far yàlla nag taar googu mujj ci ñaawaay di yokk fee di wàññi fële moo tax daal arrahmaani ak arrahimi jaaroon nañ ci ci gannaaw loolu moo tax ñu ni kon nañ ci bañ a jaaraat kon daal loola moom mooy alhamdu lillahi rabbil alamina aalam googu nag borom xam-xam yi ne baatu aalam dafa jóge ci baat bii di alaamatu muy màndarga ñu ne li tax ñu ne fa jóge ko moom mooy lépp lu am ci kaw suuf loola buñ ko jàngatee ca dëgg-dëgg màndarga la muy wane ni liikat am na ku ko defar ndax ku ne xam na ni boo ñëwoon fekk fii ciment fekk beton fekk feer ba yàgg nga ñëw gis miir bu taxaw ciment ba ne ca béton ba ne fa fer ba ne ca am na lu mu lay wan boo xamul ku yilif sànce bi itam di nga xam ne sànce bi am na ku ko yilif koo xam ne moom moo tabax tabax bii kon moo tax borom xam di wax ne lépp lu am ci kaw suuf boo ko jàngatee rek mu wan la borom arab nag ca démb ñuy wax ne al baarat tadul ala al bair wal asar du ala al masir ñu ni kon bu fekkee ne dangaa ñëw ci diggi Manding xool gis fa ay tànk ay jaaruwaay moo xam mbaama fa jaar wala wati sub jaan wala jaarukaayu doomu aadama loo fa fekk rek ci loo xam ne ay tànk la wala jaaruwaayu oto da ngay xam ne fii kat am na lu fi jaar te léeg-léeg mu wan la sax ka fa jaar dëgg-dëgg waaye boo boo gisee nag ay neefare gëléem ne ci barab da xam ne gëléem a ngi fi woon kon daal la ñu bëgg a wax foofu rek moom mooy lépp lu ñu am ci kaw suuf lépp lu waay mën a jàngat boo xoolee ca dëgg-dëgg ci say bët da nga gis ne lii kat am na ku màgg koo xam ne moom mooy ki ko amal kooka mooy borom bi kon mbir yooyu doon gi mu doon màndarga moo tax kon ñu ni aalam la koy wax mooy lépp loo xam ne màndarga la moo xam ne dana wane màggaayu borom bi waxinu mel noonu nag ñëwoon nañ ci ca gannaaw kon loolu moom mooy alhamdulillahi rabbil alamin la ca topp te ñu jaaroon ca mooy arrahmaani rahim borom bi itam ñëwaat ci beneen baat boo xam ne nee na malik mi diin moom itam mu dellu gën a bàkkaat boppam moom yàlla ndax bàkk na boppam ci rabbil alamin bàkk boppam ci arrahmaani bàkk boppam ci arrahimi bàkk boppam ci malik yawmi diin ne bisub ëllëg ba daal moom moo ko moom lan mooy maliki lan mooy yow mi lan mooy diini loola ca lañ nar a ñëw ku ne xam na ni njàngin yi ci biir alquran wuute na ñenn ñi di jàng maliki yawmi diin ñenn ñi di jàng maliki yawmi diin waaye nag ñu xam le ne maliki ak maliki bokkuñu am prix waaye bu ñu ko firee benn bu nekk ñoom ñaar ku ne xam na ni daal ndeke ca dëgg-dëgg ñaar yépp dafay dellu ci menn mbir mi menn mbir moom nag boroom moom mooy allahu rabbul alamin ndax maliki moom mu ngi jógee ci almilk ay mil almilku mooy ak moomeef borom bi ne moom yàlla moom moom lépp lu am ci kaw suuf moom moom lépp lu am ci asamaan moom moom asamaan ak suuf ak mbooleem la ca biir moom yàlla moom mooy ki ko moom moom gi moom loolu nag moo tax mu tudd Malik kon yàlla daal bis penc itam moom yàlla moom moo ko moom waaye nag ñenn ñi di jàng maliki maliki nag jóge ci almulk gi firi nguur mu ne kon yàlla moomee nag moom may bàkk yàlla moom mooy maliki yow mi diin moom mooy buuru bisu fayantikoo ba buur googu nag yàlla wéralal na ko boppam ndax yàlla xamle na ni moom yàlla moom mooy maalikul mulki moom moom ak nguur mooy jox nguur ku ko neex waaye itam moo koy nangu ci ku ko neex waaye itam moom mooy yëkkati ku ko neex waaye itam moom mooy suufeel ku ko neex moom yàlla lépp ci biir doon gi mu doon buur bu mag bi waaye lépp ci moom gi mu moom nguur ba ku am sax nguur moom yàlla moo la baaxee nguur googu ci biir ron nguuram googu rek nga mën a nguuroo te saa bu ko soobee nguur googu jeex waaye itam yàlla moom mu wax feneen ne li tax mu wax ne moom mooy buuru bisu fayantikoo ba mooy bu ñu demee ba ëllëg yomal xiyaam moom yàlla kat dana dajale mbooleem ñi mës a doon ay buur mboolem ñi daan mës a màgg màggulu bu ko defee mu daal di taxaw ca màggaayam ga daal di ne ay aynal jabbaaruun aynal mutakabbiruun ana ñi daan réeréelu démb ana ñi daan màgg màggulu ana ña fi doonoon ay buur ana ña fi tuddee woon seen bopp ay boroomi ndombal tànk ana ña fi tuddee woon seen bopp ay borom doole ana ña tuddee woon seen bopp ministre ak député ak lu soob yàlla ñoom ñëpp nag yàlla ne leen léegi nag démb yéen a waxoon yéen a moom nangam yéen a yilifoon sàngam tey nag yàlla dama leen di laaj li manil mulkul yow ma ana kan moom moom nguur gi tey bu ko defee nag mbindeef yëpp ànd ci genn kàddu ñoom ñëpp ñu daal di ne ko lillahi alwahidil yàlla mi nga xam ne moom mooy kenn yàlla mi nga xam ne moom mooy notaakoon bi moom moo lépp lépp lu lépp lu màgg màgg màgg màgg ci ron tànkam ba lay nekk yàlla moom akat moom rek moo yelloo nguur moom rek moo am nguur te sax ñun ñu amoon ay nguur démb ci àdduna yow yàlla yaa ñu ko jox kon daal moom gi moom nguur te ëllëg it muy taxaw ci kanam buur yëpp laaj leen ñoom ñëpp ñu tontu ko kàddu gi loolu moo tax nag yàlla ne moom mooy buur ba ëllëg mu daal di ne ëllëg bisu fayantu koo lay doon bi su fayante koo ba nu muy demee yàlla ne alyawma tujzaa kullu nafsin bimaa kasabat tey nag bépp bakkan ak lu mu mës a def tey lañu koy toppaat mu ni yow mi diini bis nag moom mel ni leer na waaye at diinu bu ñu ko waxee moom mooy ak fay ndax arab day wax ne kamaata diinu tuddaanu ni ngay boree ni ngay boroo rek lañu lay fayee jaam daal lépp lu mu def rek ci ëllëg dana daj dana gisaat lu mel noonu muy ci tey jii di àdduna wala muy ci ëllëg yawmal qiyaam yàlla ne bis boobakat muy bis penc bis la boo xam ne saa bu ñu fa dajee ñuy saa bu ñu fa dajee muy jaam ñi ak seen borom borom dana leen laaj waaye jaam bu nekk lépp loo xam ne mës na koo jëf moom dana ko àndi dana ko justifier ci kanam boromam jaam boobu nag buy ñëw ci kanam boromam day nekk kenn du ànd ak kenn moo xam muy wayjur wala lu mu mën a doon doon gi muy doon kenn yàlla ne moom kenn ku ci nekk mooy gérer boppam kullu nafsin bi ma maa kasabat rahina kenn ku ne la mu def duñu ko laaj kenn te kenn ku ci nekk mooy war a lijjanti boppam te sax kenn ku nekk moom kott mooy ñëwal boppam wa kullu mu aati yawmal qiyaamati fardan yàlla itam xam la ne bis booba jur du ànd ak doom ja soxna du ànd ak boroom këram boroom kër du ànd ak ay soxnaam mbaa ki doomam wax ne bis la boo xam ne ñooñu sax bu ñu gisantee kenn ku ne day daw morom ka ndax kenn ku ne jàpp na ni xëy na am na lool ba morom ka moo ko ko tegoon mbaa moo ko ko taxoon a def mu ni kon yawma yafirul mar'u min axiihi wa ummihi wa abihi wa saaxibatihi wa banihi wax feneen ne wa fasilatihi lati tuubihi waaye sax jaam bi day daw mboolem ñum xamoon ci àddina wa man fi lardi jamian loolu daal kon bis la boo xam ne bisu fayantikoo la bis la boo xam ne bisu rendre compte la bu war a jëmaat ci borom bi muy bis boo xam ne ca dëgg-dëgg xanaa sax mooy bis bi tax yàlla indi àdduna ndax àdduna fii la ñuy ñëw di leblente di lebal yàlla te bu ñu demee ëllëg daañu fay yàlla ay borom waaye ñu ni neen sunu jëflante foofu la ko yàlla di toppaatee ba lépp leer bu ko defee nag ñaari mbir rek moo ci mën a am muy ñëjëm boor bee di aljana yàlla nañu ci yàlla boole ak ña dem boor bële di sawara muy kërug safaan ga di kërug texe adi ga yàlla nañu yàlla musal ca jëm ci kër googa bi jaayal quraani karim mu mel ni kon loola lenn la ci firim bismillahi rahmaani rahim ba ci alhamdulillahi rabbil alamin gi nga xam ne yàlla moo kañ boppam te kañ gi mu kañ boppam mu digal ci jaam ñëpp ne nañu koy kañ moom yàlla ngir màggaayam waaye yàlla nag foofee la leeralee dëgg dëgg dëgg dëgg ana lan moo tax moom yàlla moom ñu war koo kañ ndax ki nga xam ne moom moom lépp muy rabbil alamin ki nga xam ne moom képp ku am yërmande ci tey moom la képp ku baax la ëllëg moom la arrahmaani rahim waaye ki nga xam ne bu ëllëgee bis ba moom rek moom mooy doon buur benn buur bi moom lépp ndax àdduna kenn mësta doon buur lépp kenn ku nekk da ngay moom lii ku ne moom la le boo nee ma diw mos naa moom yilif àdduna bi yëpp nekk buuram ma xamal la ne la ku ne day wax ne mbedd mbedd buur la waaye kër këru borom la bu ko defee buur moom lu mu yilif yilif yilif nguur gi yëpp tey jii réew mii ki ko jiite lu mu jiite jiite réew mi yëpp ku ne xam na ne du joxe dépense ci bépp kër ku ne xam na ne du jiite ci bépp jàkka kon kooka nguuram gi nguur gu ndaw a ndaw la nguur googa tur rekk la ndax dëkk boo dem am na ku ñu fay tuddee gouverneur am na ko ñu fay tuddee chef ca bu fekkee village la muy chef de village wala chef de quartier waaye itam kër gu nekk am na koo xam ne moom mooy borom kër ga waaye sax néeg bu nekk am na koo xam ne mooy yilif néeg ba bu fekkee mooy kam ak ca ña fa nekk bu fekkee mooy borom euh, bu fekkee euh, borom kër la mu nekk fa ak soxnaam moom mooy yilif néeg ba kon daal ndeke ca dëgg-dëgg buur bi nga xam ne moom mooy buur dëgg dëgg dëgg dëgg ci tey ak ëllëg moom mooy yàlla rek kon melokaan yii la yàlla nag bàkkee boppam la ca topp moom mooy ku ne xam na ni bàkk yàlla dafa bokk ci jaamu yàlla yi gën a mag moo waral borom xam-xam yi di wax ne alhamdulillahi ñenn ñi wax ne moom mooy kàddu gi gën a rëy gu jaam mën a bàkkee boromam ba am yenn borom xam-xam yi wax ne bépp baat bu waaye mën a jaamoo yàlla alhamdulillahi moo ci gën a màgg ndax moom mooy baat bi yàlla njëkk a melalee boppam dal di ca jaare digal jaam ni ñu koy melal ak a bàkk bàkkee boppam nag ay melokaan yoo xam ne ku ne xam na ni géwél buy bàkk géeram bu ko bàkkee rek yaa def nangam yaa mel sàngam di sa maam deretu gor bu dawee ci moom mën naa yëkkit lu baree bari jox ko waaye itam léeg-léeg bu fekkee dafa mel ni Cheikh Gueye male ca sama boor wala mel ni Abdou Diaw male ca sama koñ ñoom ñaar ñooña ngir seeni melokaanu sant ya moo tax ñoom du ñu joxe ak loo leen tagg-tagg lu dul nga leen may ma nàngam mbaa jox ma sàngam bu ko defee nag loola masala miñ fa bëgg a wax moom mooy yàlla jaam bi léeg-léeg dana koy bàkk rek mu maye waaye léeg-léeg itam jaam bi sopp nañ ci moom mu yegg nag ci jëmmi ñaan nga ndax sax arrahmaani yàlla melokaanoo bi mu melokaanoo yërmande tey ak ëllëg moo waral yàlla di bëgg ku koy laaj moo waral wéykat ba di wax ne bul di laaj doomu aadama say lenn soxla waaye boo demee bay ñaan soxla na nga ñaan ki nga xam ne moom buntam du ko mës a tëj mukk lii tax kooka buntam du ko mës a tëj mukk moom mooy yàlla buur la boo xam ne saa boo ko ñaanu tey yow jaam bi mu mer jëm ci jaam bi te benn jaam bu mën a dékku meru boromam amut waaye doomu aadama moom saa bu ko nit laajee rek mën naa joxe bu ko nit laajaatee mu joxe bu ñettee mu jéppi bu ñeentee mu xaste bu juróomee mu mer daal di cay jaare lànk moo waral woykat ba ne laa tas alanna baniya aadama xaajatan wasali alladi abwaabuhu laa jabu mu teg ca ne allaahu yàlla yaxdabu in tarakta sualahu yàlla daal saa bu ko jaam bi noppee ñaan saa bu ko jaam bi noppee laaj rek dana mer waaye nag wa baniya aadama xëy na yasalu yaxdabu jaami yàlla yii nag ñi ci ëpp nag boo leen laajee laajaat leen laajaat leen rek njëppite ñëw mer topp waaye itam ak bañ daal da ca topp mu mel ni kon yàlla jàngale na ñaari teggin yépp ci xeetu ñaan ndax ki nga xam ne dafa bàkk yàlla yam ci bàkk ga rek yelloo na ca ma yërmandeg boroom gi gu toll ne yàlla fajal ko ca ay soxlaam yàlla jaare ca defal ko ndimbalam waaye nag léeg-léeg <coughs> waaye léeg-léeg fawu jaam bi daal di ca teg nag ñaan boroomam bu ko ñaanee borom bi nangul ko ñaan ya kon daal ñaari façon ngi nii ñaari façon mu ngi nii ci ñaan gi jaam bi di ñaan boromam benn bi nekk ñaan yàlla gannaaw boo ko taggee ba pare benn bi nekk tagg yàlla yam ca ñaar yëpp nag benn bu nekk am na ci xeetu melokaan yoo xam ne loola moom mooy li fay mën a nekk waaye nag sax ca dëgg-dëgg nit nag mënta sax ñaan yàlla te taggu ko ba pare yàlla kon teggiinu ñaan woowu ban façon la nit di jaaree ñaan yàlla ngir yàlla nangu ko bokk na ci lu ñu mën a déggee ci ni yàlla tëggee faatihatul kitab yàlla ne alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rahim malik yawmi diin ba pare nag daal di soog a daal di mel ni kuy ñaan ne iyyaka na'budu nga janoog sa borom ne ko yow yàlla yow kat yaay ki may jaamu loola nag mooy lu ñu fas yéenee mot li ci sunu darsu ëllëg bi ndem soob na yàlla mu mel ni kon la bëgg wax foofu rek mooy yàlla jàngal na jaam bi muy baaxoo di tagg boromam ngir jëmmi màggaayam ngir jëmmi doon gi mu doon boromam waaye du sax sax di ko tagg ngir ne yàlla da ko defal nangam wala da ko defal sàngam waaye yàlla tagg gi mu tagg boppam moo waral mu yelloo jaam ñëpp di ko ci tagg te tagg googa di ak jaamu yàlla gu màgg a màgg ñu xam le ne itam jaam bi bu koy def na koy déparé bés basmala ak auzu billahi mina shaytaani rajim basmala googa nag di lu màgg ci diine islam loo xam ne daanaka Seydina Muhammad bi muy jàngale diina néew na loo xam ne dindi na ko ca ndax bu fekkee jàmm bi ca jàpp ga mu ne ko kenn mënta amuk njàpp te waxut bismillaahi balaa moo départ ak njàppam laa wudu la lam yuskar ismallaahi bu fekkee ca rendi ga yàlla ne wala taakulu mimmaa lam yuskar ismullaahi bu leen lekk dara ndare ngeen tudd yàlla laataa ngeen koo lekk te sax ka war a rendi sax balaa rendi dara daa war a tudd yàlla waaye itam jàmm bi balaa balaa balaa julli war koo déparé Seydina Muhammad ne kenn warta ubbi julli ci lu dul bismillahi rahmaani rahim waaye jaam bi balaa ubbi alquran yàlla ne nañu koy déparé waaye sax jaam bi balaa jotee ak soxnaam yàlla ne kon Seydina Muhammad ne na ca tudd bismillahi ngir yàlla mën caa jaaree barkeelal barkeelal seen diggante waaye itam barkeelal lépp lu ci sosoo yéent bi ne jaam bi balaa jotee ak soxnaam ne ne bismillahi yàlla daal maa ngi ñaan nga musal nga musal ma ci seytaane waaye itam la nga ñu naram wërsëgal ci sëy bii na nga na kooka it na ko musal seytaane mu mel ni kon bismillahi daal màggaayam a ngi noonu waaye yàlla itam jàngale na kan mooy Allahu jàngale na kan mooy moom bokku ne xam na ni kooka daal ndeke ca dëgg-dëgg kenn la waaye ca dëgg-dëgg melokaan yii mu moom moom rek a ko moom loola nag di tawhid gu wér-wér goo xam ne moo waral ñu waxoon ca démb ne tawhid ak tafsir daal ñaari xam-xam la yoo xam ne ku tafsir da nga ca gis tawhid waaye kenn mën tawhid te tafsiroo kon foofu la ñuy daanelee gannaaw bu ñu siyaaraatee bu wér-wér suñu techniciens yi nga xam ne ñoo jàppandal émission bi ba ñu koy teewlu ñëpp mënu koo jotee ni mu gën a rafetee di ñaan yàlla jàmm yàgg ci ñoom di ñaan yàlla sàmmal ñu suñu gaal sàmmal ñu suñuy jëmm sàmm itam mboolem suñuy kilifay diine te yàggal leen fi wëral leen sàmmal ñu suñu wayjur di xalifaab naa luy sekk muy sëriñ ab Salam Seck sàmmal ñu sunu sang Cheikh Mamadou Bassir Seck sunu moom di nuyu waat mboolem ñi ñu bokkal Cheikh Mouhamadou Habiboulaye Seck wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu jërë ngeen jëf